PS ak APR ñoo toog waxtaane ko organiser ko mu mel na scénario nee na ku ci dem nag acteur nga ku ci dem rek euh, film bi da nga ci gérer ba mu ko waxee ba pare ba egg këram téléphone baa nga mel ne tull ak male ñan ñoo koy woo dañ koy félicité wala ñu koy woo dañ koy wax naka sa du noonu Mimi Touré ci biir këram téléphone ba ngay sone nan lay wuyoo ñu seeti Mimi asalaamaaleykum na ngeen def militant yi waa xaar leen bu ma génne wax ak yéen dégg ngeen ah eh, ndékki ngeen cinquante appel en absence lii moom mbaa la cinquante appel numéro inconnu yëpp inconnu inconnu inconnu allo waaw. kooku miim. Touré Mandé Mori. waaw miim yow li nga wax noo ko mënee. ci lan. nga ne nga ne PDS ak APR ñoom liñ teg dil la. Ah. yow la kan. eh ma ne bul lijjanti man la kan laa la wax dama ne booy wax nga respecté say wax te nga xam fi ngay waxee dégg nga li ma la wax. Mhm. wax naa la lu leer nag te nga bàyyi sa wax yi ngay wax li ngay wax wax tegoo ko fenn. Mhm. voilà bàyyi li ngay wax naa ay ay lii ay dill la. waaye yow yow li ngeen di def nit bu leen jàppalee ba ngeen am li ngeen di am rek ngeen wor ko ba pare taxaw fu leen neex di wax li leen neex ah? ngeen di yaakaar na yéen a moom nit ñi ah mhm. man bu ma bés bu ma la déggatee nga wax xam nga bii dama la oo téléphone bii di ñëw damay ñëw ba sa biir kër ah bon eh amul ah bon amul dara yow tu es en train de eh, me menacer bul lijjanti man la kan ak menace déggal li ma la wax rek yow est-ce que yow yow li ngay woote boo amee jëlal numéro bu ñu mën a identifier ma ne uyu ma lijjantiwuma li ngay wax loolu yëpp. Ah parce que bi ngay wax yow lijjantiwoo ay identification ak leneen ak leneen. dégg nga li ma la wax bi ngay wax da nga wax àdduna bi. li ma wax du ma ci arrière du ma ci dellu ginnaaw su ma ne di la man maa ko wax. ah bon yow kay yow comme que danga nga am fit di woote ñëwal sama kër. déggoo li ma la wax. ñëwal ma ne na nga toogaat di wax yooyu noonu dañuy ñëw ba sa kër fekkal. yow ñëw man maa ko moom man mi ñu wax mi mi ngi ñëw man maa moom ñëw yow bu ma ñëwee rek xam ne ñëw ñëwal. li ngeen di def toog di yàqal ay der di wax. maa tey li am laa wax c'est ça la réalité waaye yow c'est ça la réalité. yow danga nga xam réalité bi fa la nekk yow ah? boo ko xamoon di nga tëb wax lu la neex loolu ah nga naa ay ñii ne dañuy def ay dil yow loolu war nga ko wax yow. d'accord ah d'accord. nga naan d'accord nga mën a wax nga naa maan nii boo loolu bu ma ko déggatee rek di nga xam. d'accord nii rek ngeen di di nekk fii ay loo xam ne ne. d'accord óoru leen di wax loolu xam ne ne óoru leen. d'accord ah? d'accord. waaye yow je prends acte d'accord. waaye yow d'accord. boo d'accordul nag ñu fekk la foofu léegi. waa def leen ko man maa leen di xaar. ni ngeen di def di wax rek bàyyi leen wax yi waa yow na ah, ay ay dil lan mooy dil yow uh-huh. loolu da la óor da nga saay rek mu neex la rek nga toog wax ko nii pour yàq xelu sénégalais yi uh-huh. Ah? Uh-huh. booy wax da xaar ba am lu la leer lu óor nga doog a wax li ngay wax di nga xam ne man yow góor nga am naa ay càmmin maa ngi raccroché léegi woo Sonko woowal ñëpp waaw d'accord maa ngi raccroché léegi woo Bougane waaw yow maa ngi raccroché léegi woo Abdou Mbaye maa ngi raccroché léegi woo waa F24 yow yéen ñëpp góor ñi góor yi sama càmmin yëpp dañ ko diggaale ak yow yow boo dee guerrier génn sa numéro. déggoo li ma la wax. dama ne boo dee guerrier génn sa numéro. ma ne bàyyil di toog vous êtes mécontent ay mécontent ngeen li ma wax moom moo am tey moo am ñëwal. waaw baax na yow góor buy dàgg sant ci yow laa ko gisee. ma ne del continuer di wax ma ne bu doon jigéen la ma defante ak moom mooy buy dàgg sante maa ngi ñëw woo léegi Sonko. booy continuer di wax léegi léegi laa wax foofu lañ lay fekk léegi génnal génnal. yow kañ tasa si de góor gi waaw baax na nañ daje ñëwal cité góor gi ñëwal cité góor gi buñ daje xam seen permanence ak dama ne ñëwal cité góor gi xaw ma APR nga nekk xaw ma nga nekk mais ñëwal cité góor gi ne mënoo xam ma nekk laa la dama ne tàppet xam ne dëgg la xaar ma foo nekk toog ba la naan dama ne wax ma foo nekk maa lay fekk si léegi wax ma foo nekk maa ngi lay gis ma ne mi mi ngi ñëw maa ngi dem damay dem de damay dem dama koy fekki localisé naa ko dama koy fekki eh